liggéey mburu moom doon na liggéey boo xamante ni maanaam koor lay gën a miti daal koor gi moom fi nit ñi daloo ñu ñu ngi ci dañ-dañ gi di daw rek di fexe gars yi ndogu waaw bëgg daal saa su ñuy bëgg gars yi di am mburu mu tàng jër. waaw aja gars ñu ngi doxal de gars ñu ngi doxal fuur yi ñu ngi mu ngi fuur yaa ngi bëri par rapport ak boobu fuur yi ñoo tutoon mais léegi moom fuur ñu ngi def le tout pour satisfaire commande bi fuur ñu ngi yokk ndànk-ndànk alhamdulilah ñu ngi ñaan tamit mu gën a yokk. waaw jafe-jafe yi nag yaatu na ndax maanaam fim mu ne lépp a cher ci wàllu farine bi yokku na gasoil bi yokku na courant bi yokku na lépp a daal te it euh, maanaam euh, maanaam frais yeeg taxi daal métti na daal waaw waaye nag dañ koy maintien rek te xam ne ginnaaw mburu moom yàlla moo ñu ko nattoo moom na nañuy fexe ba askan wi moom saa su ne nañuy bëgg donte buñ ci gis suñ bopp sax ak jaamu yàlla la daal liggéey jaamu yàlla la daal sant rawatina nag mburu man moom ñu ngi respecté suñu commande bu baax a baax ñu ngi koy respecté commande bi baax li jox ñu ngi koy dugal fexe gars yi am mburu bu baax waaw gars yi dañuy ñëw livreur yi ñëw dugal seen commande après yow tamit nga yokk ci tuuti pour bi mën a am mburu bu baax ak euh, mburu bu doy waaw gis nga ñun sant yàlla rek way ak góorgóorlu xam ñun moom daan sa doole rek moo wóor daal waaw damaadam bu la yàlla sàkkee surtout nga nekk góor waaw del góorgóorlu rek daan sa doole xam ak nu mënti demee quoi jaay pexeb yàlla ak dogalam wéy gis nga gars yi ñu ngi oto mais ñun moom jagataay si leen yor si leen yi suturloo waaw seen di si tere suñu waajur liggéey moom livreur yi man mi daanaka mën naa ne gérant la la mburu moom yàgg naa ci lool waaye nag euh, lu ci lu ci borom fourni daj rek livreur li ñu ciy daj moo ko raw ndax borom fourni moom ñooy fournir seen xaalis waaw di produire waaw ba koo séddoo ba koo séddoo ñun ak ñi nga xamante ni ñooy ñoo jënd mburu mi waaw ñun tamit am nañ ci ay jafe-jafe ak ay coono ndax daanaka da ngay léeg-léeg da nga chargé mburu boo xam ne dañ ko yóbbu ci client yi client yi jaay ko ba pare faj seen soxla te boobaa boo dikkee doo ci man daal da nga leen joxaan mburu rek te xam ne yàgg ngeen def ngeen ay at daal doo man lu dul comprendre ko bu ko defee borom fuuru moom it du man lu dul moom it nag daal di euh, lay comprendre yow it ngeen ginnaaw ñu naan ñu bokk ñu bokk ay goj ñooy laxaso muy borom fuur bi livreur bi jaaykatu mburu ñu ñëpp benn lañ comme yàlla bool nañ te nattoon nañu ko moom dañ bokk mu neex ñuy ànd muy naqari ñuy ànd rek. mën nga koo xëy livré waaw santé ba da ngay dem dikkaat boo ñëwee nga jëlaat yóbbu waaw li oto yi livré yëpp jakataay mën nañ ko livré xaw a metti benn heure parce que ñëpp bokk benn heure bi te tardement bi moom du la lebal dara weeru koor mais ñu ngi def le tout daal ñu ngi def le tout ba mën a satisfaire clients yi ñu mën a am mburu bu doy mburu bu baax mburu moom mënut a doy moom mburu moom mooy mooy doxee noonu alal dina la mënut a doy maanaam boo lakkoon tey lu du jeex jal ko fii ngi bañ mburu mi ne mburu mi du manqué mburu mi sax mën na faa des keroog waaye bu subaa boo wàññee ne mburu mi démb desoon na du xaaj sax bay heure ba nga ko heure ba nga ko lakkoon sax balaa heure boobaa jeex mu jot mu jeex kon mburu moom yëpp jinne la rek duñ def lu dul rek maanaam di ci ànd ak calcul ak xel rek di bañ liggéey lu yàqu te di liggéey loo xamante dinañ man ba surtout nit ci clients yi daal. non koor yàlla ci liggéey bi gën a dox parce que mburu bi day dem si suba si en même temps day dem si ngoon gi quoi sa xam nga bool moom fii dañoo bëgg mburu gars yi mooy lool dañ koy bu baax a baax. non ci koor gi lay gën a dox parce que léegi ñëpp mburu la ñuy ndogo te dëkk bi dafa bëri ay a xam waaw mais heure bi la gën a dox moom. bon léegi liggéey koor moom moo tax ne liggéey avant koor moom ndax li ngay li ngay ngay fournir ci ci koor gi li nga ciy liggéey ci koor doo ko liggéey ci après koor koor kay ñun borom boulangerie bu ñu soxla day doon maanaam maanaam juróom yoon ci at mi waaw bu ma nekk juróom yoon ci at mi moom dina baax lool waaye nag ci taw feex rek. <laughs> waaw ñu sans départ rek parce que liggéey commission la quoi du fin du mois liggéey commission la dañuy jaay lu jar lu jar ñuy indi lu jar ñu xool si suñu wërsëg ñu jël ko ci. four bi li si des four bi.